leem góor ak yàlla gu tedd gi boroom xam-xam yi boroom xam yi maam Khalifa Niass bind ci siira lu li kenn musta bind ci rafetaay ci wér defee ko ci baxru xafiif bi bu sëyri yu defee woon xam ba boobu nag mi ngi toll ci maa ngi waxoon ak yow ci buntëb xare yi te waxoon naa la ko léegi baabun fi dikri xasawaati nabi sallallahu alayhi wa sallama te xareem ñaar fukki xare la ak juróom-ñaar am ci yoo xam ne dañ koy tuddee ñàngal buñ ne ñàngal nag mooy yoo xam ne moom dafa xeble rek dana ko wax ñàngal ya am nañu lim ko waaye ci ulama wu séeré ci wuute yépp xalifa jàngal nañu ko xare yi tamit ak wuute am nañu jàppoon ne ñaar fukk ak ñeent la am nañu wax ñaar fukk ak juróom am nañu maam xalifa ne bi ma ko seggee ñaar fukk ak juróom ñaar daal moo dal sama xel weddi huma nag keneen weddi huma leneen xare yi yëpp maam xalifa ne da xeexee ci ñi dal ci kawam mu attaqué boppam xare juddu wala ñu tooñ ko mu fayu xare juddu waaye amut benn bu mu jug moom di tooñ di dal ci kaw nit moo tax ñuy wax ne ah, lislaam dafa taxawee ci jaasi dañoo juum li xare yonantu bi yëpp li ci dee ci ay nit boo ko doon calculer ñeenti téeméer yu teg tuuti la première guerre mondiale ñaata nit a ca dee deuxième guerre mondiale ñaata nit ca ña ca dee attaque bi Amérique attaqué Irak ñaata million ca dee bomb bi ñu sànni woon Nagasaki ñaataa ca dee yeneen guerre yi am tey ci wàllu raasoo ak ci waasoo ak noteel ñaataa ca dee ay million yi million yi nit te yooyu yëpp alal xëccoo nguur xëccoo daraja xëccoo suuf moom miim nag xareem yëpp dañ koo tooñ wala ñi tooñ ko muy fayu wala ñi dal ci kaw mu défendre te lépp xëccal lislaam la ak taxawal taxawal diine ndax ñi ko gëm liñ gëm lu dëggu la lu wér la lu bàyyeekoo ci yàlla di leer ñeneen wet dina du ngeen ko fi dundee dal ci seen kaw ñu défendre seen bopp ci lay xare yëpp juddoo wala ñi tooñ ko mu jug di fayu xare yooya nag maam xalifa ne xasawaatu nabi xare yonantu bi sabon juróom-ñaar la wa ishrun ak ñaar fukk muy ñaar fukk ak juróom-ñaar vingt-sept atat dikkee na bihi wala ngane ne bi xulfin ci huute ate atat dikkee na bii ci huute googu an baawu solo yi xare yooya nag ñaar fukk ak juróom-ñaar waaye te réew am na ñu ne ñaar fukk ak juróom am na ne ñaar am na ñu ne ñaar fukk ak juróom juróom benn am na ñu waxtu bi leen dul loola waaye man maam xalifa daal bi ma seggee mbir yi seggantal ko jur ñaar fukk ak juróom-ñaar laa tànn wa ma xaasihi way xeexam boo ko bëggee xam in turit boo ko namee xam bu waat mu jiituwut nag fa Usayru Usayru ca xaree la wa qablaha njëkk na Usayru buwaat abuwaa moo ci jiitu danaa la ko farañ fànceel su ko defee tamit gannaaw xare su ma Safwaan ci xaree la su ma Badrun topp Badar ci xaree la wa fiiha ci Badar siida yëkkateef albinaaw tabax ba li diini ñeel diini ñi yëkkatee ko bis suyoo fi ci sababu jaasi jaasiye nag jaasi fayu la dañ leen a tooñ nangu seeni alal génne leen makka ñiy fayu di dabi seen alal jooja ak di dabi ki ñu leen tooñoon seen ak fayu ba xare bee juddu ci badar googu danaa ci taxaw ak yow lu yàgg nag gannaaw bi ma la tuddalee xare yëpp danaa taxaw ci badar ndax mooy xare bi ëpp victoire ci jullit ñi ci la raayaay lislaam yëkkati ko ba pencam yàlla dootul daanooti xare bu mel ni moom ci ngëneel amul benn bu ko niru lu dul Xudaybiya ngir bayatu ridwaan nga ca xew waaye terewul sax bee ko ëpp doole maam Khalifa ne gannaaw xare yooyu ma wax la ah, ah, ma limal la xare yooya Suleymun ak Badar ya ca xaju amaan na ca xare xare bu ñuy tuddee zu imrin moo tax mu ne suma zu imrin topp zu imrin kasaa naka noonu uxudun ca xare yàlla xat naa la xamee na fii ci uhud ashuhadaa way shahid ña luñ ca amee shahadata ak shahid ci la bàyyi taxam ba xamsatu ci lañ ko rayee xare bu tàng la ci lañu damee sell yonantu bi xaañ ko ci la seytaane siiwalee woon ne rey nañu yonantu fekk xamut fa nadiru nadir ca xare ya la ruqaaun ruqaa ca xare ya la dawmatu cala ca la fal mustaliqu ca la xandaku xandak ca la alxasinu mooy tataja waqaawu bay aji fekk kon nag tata tataja mooy xandax biñ gasee dëkk bi wërale ko danaa ci yegg si ci xilaatab Salmaan al Farisi moo tax kon yooyu yëpp maanaam ca ca xare ya la xare yaa ngay dem yu bëree bari la yonent bi def ko ngir taxawal dëgg loo ak xeefee yi ne ko doo ko fi dundee fu ma jaa oo topp dikkal nañ Quraysata bani Quraysata ci xeex fa banu Lixyaan dikkal nañ leen ay yahud lañ waadi Qura dikkal nañ ko xare xare la moo tax mu ne waadi Qura waadi Qura kasaa naka noonu jaa oo dikk nañ ca. kon Quraysata ak banu Nadir ak banu Lixyaan ak waadil Qura yooyu yëpp ci xare ya la fa Xudaybiya Xudaybiya ci xare ya seen xaaba ba muy gott ba kare la xaybarun xaybar ci xare ya la fal fatfu topp fatfu màkkata ci xare ya la wa huwa moom amri gëj naa sama dudd bi ne almu naa mooy mbébét la laay ndaw wax ju rafet xare yi la yëpp fatu màkka ko taxoon a jug keroog ba màkka hubbeekoo ci bunt yëpp hubbeeku ci la yonantu bi ne laa hijrata fat fathi gàddaayi amatut gannaaw fatu màkka moo tax gannaaw fat fatu màkka xasee am rek ñëw jaar jàllale rek li ci des yëpp dafa yomb moo tax maam xalifa ne mooy mbébét ma fa xunaynu xunaynu ca xare ya la taayifum taayif ca la umratun maanaam muy umratul qadawi summa tabukun topp tabuk ca xara moom de arduha suufam sa xarraa u aji tàng la xare bu métti la woon ba ñuy dem sax ñu bari dañ leen noon laa tansiroo fil bu leen tey dafa mbooyoo bu leen génn mbooyoo mi dem di xare ji yàlla ne bu ngeen bëttut mbooyoo mi dangeen dem safara te kenn mënu ci dara lii mooy ñaar fukki xare juróom ñaar moo tax maam kalifa ne ñaar fukk ak juróom-ñaar yi le xadara teewe na al Moustapha kuñ tànn ka bi haasi ci yile jamian bi mu mboole seen mbooleem xare yi yëpp teew na ca yenn si lu mbir moomu di wàcc an nasru ndimbal xaysu kaana fu mu fa di liwaawu drapeau ba rek ndimbalam di wàcc ndimbal ak yàlla di sotteeku ci seen kaw ndax baatam nasru foo ko fekk ci alquran rek ismu jalaal lay ànd nasru ila min indillah ida jaa nasrullahi in tansurullah yansurkum du ànd moom kenn mu foog mu ànd ismu jalaal maam xalifa na nag am na yeneen juróom-ñeenti xare ci biir xare yële di ñaar fukk ak juróom-ñaar yum bokki jaasi xeex waaye ànd ak loolu kenn nit la mos a rey ca Uhud muy Ubay ibn Xalaf mi maam xalifa doon wax ne hal la badata qablahu bi nukuri ala abi jahlin raisul kufri suma tura musanniyan bi ibnil xalaf abil maqtuli xaqan issadaf kooku la mosa rey de te yonentu bam koy wax dana maa koy rey sax booba deegut yàgg na lool ba xare ba jotagut moo tax mu ne suma salla topp bocc na asuyufa jaasiya fii tisi xasawaatin juróom-ñeenti xare ci la yonentu bokki jaasi xeex tufri mbir moomu jaasi yooyu ña ngay dagg luy dagg tufri dana dagg sa baawu ñawka ya lu ñuy dagg hëmal addu wi kaangam boppam noon ba waaye noon yàlla ca namu moom daal fu ñu boccee jaasi saxaba ya bocci jaasi ñuy xeex ñaw koy jaasi yaa ngay dog nga maanaam bopp xéeféer ya yan xare ci la bokki yi mu ne sàlla bokki na jaasi fil fati fatu makkata wal muray sexi xaswatu muray sex bokki na jaasi badrën badar bokki na jaasi xiina xaafat wax xaanat la war a doon waaw téere bee ko yàq ci naasix bi waaye naasix bi moom lu mu wax wér na wér na xiina xaanat a ba nga xamee ne xoor ashqiyaaw ñu texe di ña maanaam at muy muy muy muy Quraysata banu Quraysa banu Quraysa bi ñu xoree yonantu bi ci kóllëre gi ñu façon ak ñoom keroog yonantu bi bocc na jaasi kon da wax ne xii nag xaanat waxtu wa nga xamee ne xor na Quraysatu banu Quraysa al asqiyaaw ña di way texe ji keroog yonantu bi bocc na jaasi xeex uhudun uhud bocc na jaasi xeex ci lañ demee sellam ba xaañ ko daane ko ca kàmbu ga ci la reye umay ubayum nu xalaf xaybarun xaybar bokk na jaasi xeex fa xisnu saqiif tataay saqiif ja bokk na jaasi xeex xiinal taqaa waxtu wa dajee quranaawu noon ya fil xandax ca xandax muy axsaab xaswatul axsaab bokk na jaasi xeex fa xunaynun xunaynu bokk na jaasi xeex waadil quraa bokk na jaasi xeex fa nu dayru nadaru maanaam fa nadiru nadiru bokk na jaasi xeex waaye wee tax mu tasxiir ko xaabatun gott ba ab place la ba na jaasi xeex xalifa ne tammat mat na tisaatun juróom-ñeent yi nusaraaw yedi way ndern mooy yedi way niroo juróom-ñeenti xare yile boo ko génnee ñaar fukki xare ak juróom-ñaar juróom-ñeent la ci bokki jaasi xeex su ko defee ya ca des bocciwul jaasi xeex ca wasara yaahu ñàngalam ya mooy yi nga xam ne fa xeble rek waaye demut arbauna ñeen fukk la wa on ak juróom-ñaar am nañu wax juróom fukk maam xalifa lii laa tànn de defal na ko téere spécial tuddee ko saqiratul ataaya fil wufudi wa saraya façon fànn googa moom kenn moo ci masa eh, taalif téere ci nit ku ñuul ak ku weex mbooleem rasaayil yonentu bindoon buur ya leetar bu ne fum mu mujj wax na ko ca mbooleem ñàngal yi de ñam heble woon ak la ca xew fañ mujj wax na ko ca defal ko fànn goo xam ne mustaqil la taalif ca moom kenn ko mos a def ci siira moo tax mu ne asbatatha saxal na loolu ma wax la xudamaa jiitu jiituñu fi siirati ci siira de lii mooy mooy ñàngal ya su ko defee nag moom yonent bi boppam am na ay xaj yu mu def maam xalifa ne xaj na min qabli hijrati njëkk muy njëkk gàddaay jiima xajjaatin ñetti xaj ci la xaj jiim ñett la ci namu wa kullun mbooleem xaj ya fii aji nekk la ca ixtilaaw ak kawe ak yëkkatiku li diini ñeel diina lislaam xaj dafa yëkkati diina lislaam ñetti xaj la xaj njëkk muy gàddaay gannaaw si ga nag ñaata yoon mu ne suma baxda xijjatin suma du gannaaw si ga gannaaw bi nga xamee na nii def na gàddaay si na xijjatun benn xaj li widaa ngir tàggatoo rek mooy xajatul widaa ci xatam juróom-ñeenteel ma jëm fukkeel ma moom ci lay xaj-xajam gi dajjati coow na yuuxu na al ardu suuf indahu fa ajam fa ajam googa wa samaaw asamaan ndax ci la aaya bi tàgg yonent bi wàcc ci al yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum ni'mati Aboubacar kontaan euh, euh, sahaba ya kontaan Omar ibn Khattab ak ñëpp di manifester Aboubacar mi dégg waxi mag jooy ne bu diine ji xasee mat lu fi yonantu bi defati aaya bi da koo tàggee de yéen a xamul li xew rek waaye lu néew la dundaat door a génn àdduna kon ñetti xajangoog yu mu xaj njëkk muy gàddaa gannaaw bim gàddaayee wenn yoon la xaj muy xajatul widaa su ko defee nag wala hoo aji nekk la ñaal ko xayru xajji lu dul xajam ya umrun ay umra umra nag am na ne ñeenti yoon la umra ñeen ñu ne ñetti yoon waaye lu ci mën a am maam xalifa ne xad naa la xamee na min rabbi ci boromam maa yasaaw la ko soob ci umra ya arbaun ñeent xat saxad wér la waxeef na ne la wali kullin ñeexal ne umra yi wala kumu ci ñett yeeg ñeenteel bi an baawu solo min haas ci yére ñu ne ñett xamal nañ ko argument yu wér ñu ne ñeent la xamal nañ ko argument moo tax mu ne wali kullin aji nekk la ñeel képp ci ñaari xibaar yu wuute yi le ñett ak ñeent an baawu ak solo ay solo min haasihi ci yi min haasihi ci xumraam yi le kulluha yëpp nag ah tàbbal na ko fii si qiidatin ci weeru euh, digg weeru digg tabaski ci la ci la ci la ci la tàbbal umraam yëpp xat xakaa nettali na za lii man ki nga xam ne lahu aji nekk la ñaal ko intinaawu ak sonnee bi bi fi amri nabi ci mbiram yonantu bi boppam la ci namul man mi nga xam ne sama xëy sama ngontu lépp mooy liggéeyal yonantu bi maa leen xamal ne umraam yëpp bu dee ñett mbaa muy ñeent ci weeru digg la ko def loolu moom maa leen ko ci xamal ñu ne ko nag mu ne bu dunoo gëléemam ya fii tal ji ci xaj gu mujj gii di xajjatul widaa bëri na bëri goo xam ne xadru sini fa tolloog xatam yim dund muy juróom-benn fukki xat ñett la dund juróom-benn fukki gëléem ak ñett moom la joxe xadaaya ca Kaaba ga ca xajam googa ñi reen di ko jox ko fuqaraaw yu masaakin yi lot ko. wa kaza naka noonu mislu bu duni kem gëléemam yële tamit de utaqaawu jaam yam goreel ndaw bayti bu fasax li arab sax mënu ko wax. budunuhu fi dal xajji qadru siniihi wa kaza mislu budunihi lutaqaaw kenn musu ko wax góor ak yàlla gi nee na at mi yonentu bi jël na lu mag juróom benn fukki gëléem ak ñett def ko ay hadaaya ñeel foqaraaw yoog masaakiine ci xaj ga waaye gi xaj tamit jël na juróom benn fukki jaam ak ñett goreel leen kon moom maa ngay feetu anniversaire u dundam ga ci goreel tey jaam libéré leen juróom-benn fukk ak ñett reen loj ca ay gëlëm tamit mu ñeel fuqaraaw yeeg masaakin yi a mu tolloog at yim dund kon nag xaj gaangóog ci yonantu bi xumra yaa ngóog ci yonantu bi li ci des nag yi la yëpp dama la koo tuddal tuddang mbëmbëstal ci xare yaag njàngal yaag li ci xaju dama la ko bëgg a farañ fànceel nag ci njàngaleem maam Khalifa benn par benn nga ban koo xam rawatina nag xaswatul badar waxoon naa la ne la xareem ñaar fukk ak juróom-ñaar la xare nag boo demee ci xaamuus bu ñu waxee xaswatu mooy xare boo xam ne yoonutu dafa caa teew la ñuy tuddee xaswatu loolu la xaamus gëm bépp xare boo xam ne généralu guerre ba teew na ca rek xaswatu lañ koy tuddee ñaar fukk ak juróom-ñaar la bu ñu waxee saraya muy jamoo sariyatin mooy boo xam ne moom demut waaye fa xeble waaye buñ ko waxee ci baat bi buñ ne saariyatu nag mooy ñàngal goo xam ne ba cëg la jug buñ ne sariyeetu mooy ñàngal goo xam ne guddi lañ dem lañ dem euh, demim ngi bàyyi ko ci saraar ak yasri yi waaye buñ ko waxee ci adat ci boo delloo ci xaamu sariyatu lim bi fuñ ko waxee rek ñu ngi ci namu lu dooree ci juróom fukki bakkan ba ñetti téeméer lañuy tuddee ñuy tuddee sariyatu mawaahib ne sariyatu ñu ngi koy tuddee lu mat téeméer ba juróomi téeméer du ko paase bu ëppee juróomi téeméer ñu tuddee ko leneen bu ñeman xab namu ko ci xare fu ñu ko waxee mooy fanweer ba ñeen fukk bu xëppee ñetti téeméer jëm kaw dañ koy tuddee jëysu su matee ñeenti junne ñu tuddee ko jaxfal bu matee téeméer jëm ba junne ñu tuddee ko katibatu kataayib jamaxu katibatin bu nekkee armée bu rëy bu mag ñu tuddee ko alxamis kooku mooy jëysul azim kon carré yi noonu mooy seen tur yi pour nga mën koo xam waaye carré mi yépp boo koy jël am na ca xare bu ñuy tuddee bawaat moom la njëkk moom la njëkka a tudd waaye njëkkut ci carré yi nag ndax nee na fa ma xaasihi in turit buwaatun dañ ko wax di ko wax bawaat waaye gannaaw bawaat am na bum mu tudd Usayru moom tamit tudd na ko waaye njëkkut boobu Uzayru am na bu ñu tuddee abwaa abwaa nag moo njëkk ci xare yépp lu ko waral abwaa moom la ñuy tuddee xaswatu waddaan moom aw doj la wu nekk diggante Makka ak Madina xare boobu bi muy xew booba yonentu bi fukki ak ñaar la am Madinatul a Munawara diggante doj woowa ak Madina juróom-ñetti juróom-ñaari maayil la ñii ne juróom-ñett waddaan sax léegi dëkk la bu mag ci dëkki màkka yi bokk na ci ndey dëkk yi di jidda mel taayif mel ko ni la waddaan mel tamit léegi boo demee xujjaaj yi baxee ko Madina foofu lañuy ñuy bëttee jëm màkka xare bi ba muy xew yonentu ba muy dem ka mu bàyyi woon madinatul munawara mooy Saad ibnu Ubaadata ba ca yonent bi dem juróom-benn fukki ni rek la ànd ak ci ay sahabaam booba li ko taxoon a jóg bëggoon a dajeeg waa Quraysh seen njëgg ma ak bani damrata yàlla dogal na ba muy dem fekk na jàll nañ xare sonu taxam waaye comme ngànnaayu na bàkki jaasi rek doonte xeexut ne tuddee ko xare ndax teew na ca fa ñuy war a xeexee bi ci tegu ci xare yi bokk na ci ci xare boobu ma wax la ndeysaanam bi nga xamee na ni a Quraysh ko tax a jug ak Bani Damrata seen sang ba waa Bani Damrata di dumratu seen sang ba tudd Mujaddid ibnu Amru ad-Damriyu fa fala ko fekk nag moom ca Abwa mu jaayanteeg yonent bi def ak moom maanaam ne ko daal dootuñ xeexak moom ci kaw suuf duñ dimbale tamit kuy xeex ci kawam yonent bi dem kon yoonam wa sooyut ñaar fa ko taxoon a jug benn ba rëcc na muy njëgg ma waaye beneen bi moom moo mujj na sotti ñam naroon a xeex ak dañoo mujj def ak moom musaalaxa ñaareelu xare ba mooy xaswatu Usayr boobu xare mi ngi ko doon def pour ci benn palaas bu ñuy albani mudd licc usayratu tasxiir la su ko defee waaye palaas lañ ci namu waa bani mudd licc ñoo ko moom du ko defee yonentu bu génn na fa ci weeru ndey ji koor booba fukki weer ak juróom benn la xamagu madinatul munawara ba muy dem diine ngi yokk juróom maanaam téeméeri nit ak juróom fukk la ànd ak ci ay góor xam nañu wax ne sax ñaar téeméeri nit ci muhajirin la ànd ak ak fanweeri jëleem dañ ko doon toggooxante bu ñuy waree ba sonn dox ñeneen ña war ñeneen ña war sonn ñoo ngi def noona li ko taxoon a jug yëpp mooy njëggam ah njëggam Quraysh ma ci diggante Makka moom fekk place bi ngi ci diggante ak Saam booba waa Quraysh seen njëgg xalal ja dafa bari lool ba jéggi dayo te ñoom xalal yi yëpp dañoo tëdd ci xalali saaba ya tëdd ci xalali yonantu bi moo tax fu ñu leen jéggee rek ñu ngi leen jéem a gàttandu pour jot seen xalal ya njëgg mi yonantu bi doon gàttandu ji nag ca Usayra nekkoon na juróom fukki junney diinaar ak junney gëléem xam nga loolu ay milliards la juróom fukki junne dinaar ak junne gëléb ki jiite woon njëgg ma mooy abi sufyaan ànd ak ay góor góor yooye bokkoon na ci omar ibnul aasi maxramatu ibnu nawfal ca la bokk seen limba ñoom góor ñooñu ñëpp doon garde njëgg ma ànd ak abu sufyaan fanweer lañ ak juróom-ñeent ba yonent bi di hegg place boobu di usayratu fekk na ñoom jàll nañ moo tax sonnuñoo xeex fekk na jàll nañ ñetteelu xare bi mooy buwaat bu la neexee nga fatxa ko bawaat moom timit doj la ci doj yi Juhaynata yonentu bi dem na fa xare ji ci weeru rabiil awal muy weer wim juddu booba nag fukki weer ak ñett la defoon madinatul munawara bii moo jiitu bu ma bu ma wax léegi bii mooy ñaareelu xare bi ndax bële fukki weer ak juróom-benn la bii fukki weer ak ñett bu njëkk ba fukki weer ak ñaar la bu ñaar bu bii mooy ñaareel bi nag di fukki weer ak ñett bi ma la nettali léegi nag muy Usayratu mooy fukki weer ak juróom ñett kooku mooy ñetteelu kare ba lu ca mën ba muy dem mi nga ànd ak ñaar téeméeri nit ci muhaajiriina yi di gaarlu njëgam Quraysh yi ma rek ba tey njëg mi nag lu bari woon la alal yoon bi ñaari junne la ak juróomi téeméer ci ay gëléem ci leen jiite woon Umayyatu bnu Xalaf moo jiite woon njëg ma ànd téeméeri nit ci waa Quraysh yi bi ko yonantu bi yëgee ànd ak ñaar téeméeri nit pour demoon di leen gaarlu ji yàlla dogal ba muy dem fekk na ñoom jàll nañ sonn ñoo xeex ñoom ba ñuy dem ci xare bii le drapeau bi Saad ibnu Abi Waqaas la ko joxoon ki mu bàyyi woon Madinatul Munawara mooy Saad ibnu Muaaz moom la fa bàyyi woon ñetti xare yi le ñoo yi jiitu ñeenteelu xare ba la ñuy tuddee Safwaan safwaan mi gannaaw Usayratu la xew fukki fan rek la moo dox seen diggante li ko taxoon a jóg mooy gaarlu njëggu Qurayshi ma ba yonantu bi di dem kam bàyyi ma diina mooy Zayd Zayd ibnu Haarisata ak Kars ibnu Jaabir yàlla dogal ba muy dem tombeeg njëgg ma dem na sonnu ta dal ci seen kaw sonnu caa jot kon ñeenti yoon yonantu bi génn na ko di gaar lu njëggam Qurayshi ma ñeenti yoon yëpp dañoo sooy sonn ñoo jot ca njëg ma moo kam bowaat la xusayratu la abwaa la maanaam safuwaan la yile yëpp ñeent lañ yoo xam ne yooyu ko tax a jug benn fa ci bi ko defee nag gannaaw xare yile bani suleymin ñëw na fa suleymun ca xare yàlla wax naa la ko xaynu xaax ca la surayqun cala xarxarul kadri cala xaaratu sawa mooy lokki goo xam ne dafa peeg ji barab cala waaye nag comme safwaan badara ci tegu dama lay njëkk a nettalil histoire badar danañ ci àgg nag su ma ci bàyyeekoo door a ñëw ak yow ci xaswatu salimun door a ñëw ci xaynuqaa door a ñëw ci surayq door a ñëw ci xarxarul kudri door a ñëw ci xaaratul sawa badar gile daal mooy xare bi ëpp victoire ci jullit ñi ci la raayaay lislaam yëkkatikoo dootul daanooti ba péncam yàlla ci la yonentu bi xamee victoire bu kenn mënta weddeeti ci kaw suuf mi ngi xew bisab ajjuma fukki fan ak ñaar fukki juróom-ñaar ci la xare bi xew ci weeru koor la tombeek booba yonentu baa ngi xam ma madinatul munawara fukki weer ak juróom-ñett muy dix dix-huitième mois bi la ci ñaareelu at dugg ci gàddaay ga fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru koor tombeeg bi sab ajjuma waaye fukki fan ak ñaar nag lañ génn dëkk bi waaye xare bi moom mi ngi door a xew ci fukki fan yaak juróom-ñaar kon xam nañ juróomi yoon juróomi fan ci yoon wi avant ñuy xeex amul benn xare bu ko niru ci ngëneel ak ci victoire ak ci koom-koom xuday bii rek moo ko xaw a jege waaye fekk bii sax du moroomam badru nag lañuy wax lu tax ñu tuddee ko ko ñu ne teen la génn góor gu ñuy tuddee badru nu quraysh moo ko gasoon ñu far tuddee ko teen ba palaas ba ñenn ñe ne déedéet badru daal génn góor gu bokk ci banni damratala dëkkee woon ca palaas ba ñu far askane ko ko ñu ne badrutu badru teen la tuddee nañ ko ko ngir seeluwaayu ndox ma ak wërngeelu waay ga ron gim ron moo tax ñu tuddee ko ko lu ca mën a am ñaar fukki farsax ak juróom-ñett la moom ak dëgg diggante moom ak madinatul munawara li gën a wér nag dañ koy góoral badru la ñuy wax waaye duñ ko jigéenal muzakkarun laa mu annasun da wax ne haza badrun doo wax hazihi badrun ngi koy tuddee ci téere bi alquran yowmal furqaan wa yowmal furqaani kon moom la alquran tudd na ko ne wala qad nasarakumullahu bi badrin wa antum azillatun xare bii nag yonantu da doon ndogaale ji njëgam abi sufyaan ah ndax booba ñoom tamit ñoo yóbbuwaal li jullit ñi rek yonentu bi yëg ne abi war naa dëpp mu joxe ndigal ne daal nañu armé dem dogale ji njëgg ma ñetti téeméeri nit ak fukk ak moo doon seen lim léegi nag abi naka jekk dafa daan wut xibaar di laajtelu lu ngeen dégg ci xibaaru yonantu beeg suñ njëgg mi bañ mujj xamal ko ne préparé na ngir dogale sa njëgg mi ci la teggi aw yoon lu ye benn waay joo xam ne ku man liggéeyam la muy dam dam no omri alxafaar yi yónni ko Makka ne ko boo demee ñëwalal Quraysh ne leen bu ñuy yéex ñàkk seen xalal ji lu ñu xam ci armée nañ ko armé wu lu ñu xam ci ay jàmbaar nañu génn dogaale ñëw ñëw gasandu si ñu lii ba mu yomee dam-dam mu dem ba jub dëkk ba ñaas boppam xotti yëreem ya yokk pour yokk xay wi rek waaye ndeysaanam njëkk muy dem nag fekk na génn jigéen gu xam gént gu ñu tuddee aatikatu gént na gént goo xam ne daal tiitloo na ko mu bàyyi ba suba mu dem nettali ko Abbas mbokkam mi ne ko loo gént mu ne ko benn waaju war géléem ñëw ba ci xuuru màkka mu yuuxu ne hee alaa infiru yaa ahlal xadri li masaarixikum mu wax ko ñetti yoon hee génn leen yéen waa xuur wi jëm ci seen nërmaluwaayu xeex ñetti yoon la ko wax ma gis nit ña dajee di topp kàddoom googa di yuuxu mu waxaat ko waxaat ko ba muy ñetti yoon ma gis mu jël aw doj foree ko ci suuf sànni ko mu fettax waaye doj yooyu daal xamul fenn ci suufu màkka ci ah, dëkki màkk këri màkka yi lu dul ba dugg na ca amul benn néeg lu dul dugg na ca man daal xam naa ni nag lii daal mënumaa fi di gént waaye du doon jàmm waral sa nit ñi maa ngi la koy xamal yow Abbas Abbas na ko naxem sama digganteeg yow xibaar moom bu ko ñaar xasee dégg rek bu bu génnee ci ki ko xam comme dem rek dana siiw loolu sax bu yàgg ba la woon waaye léegi boo xelaatee dara boo ko waxut ki sa bakkan sax ni bootul gars yi commencé koo euh, publier ci réseaux sociaux yi bi réseaux sociaux yi xaw ma réseaux sociaux yi ba ñu xewee ba léegi kenn mënta nëbbati secret di sos rek léegi léeg ñi monté ay wax léegi léeg ñu def montage jëmm kuy wax di bay monté fen kooka xam nga ne kon bu gisee luñ mën a annoncé wala mu koy tasaare waxatuñ ko xaw ma réseaux sociaux yi lañ koy wax xaw ma yi te ba léegi secret amatut loo waxtaan ak sam néeg boo xëyee gars yi publier ko ñoom ñaar a xam xibaar bi moom tamit Abbas dem waxtaan ceeg mbokkam Walid ibn Utbata xaritam la woon lool nag ne ko sama jigéen bi de gént gi gént jaaxal na wax na ko ko Walid ibn Utba moom kenn moom la ko wax moom tamit mu dem wax ko baayam kon ñeent yëgagum nañ ko ba ko ñeent ñu yëgee mu tasaaroo màkk ba xibaar ba xegg ci abi jahlin mu ñëw ci Abbas ne ko yéeg na ñuy bëgg a lëjal seen góor ñi xooteeb yonantu mënuñ koo dékku seen jigéen ñi commencé di xoote gént di gonte ak xoote ak yonantu feen ko teg te seen yonantu bi mbiram yi ci gént la tàmbaree woon léegi nag yéen waa ba bani abdul mutalib ay yonantu ngeen ba ci seen jigéen ña mu ne ko lan la mu nettali ko gént gént ak xàttikat gu foogutoon yëg na ko waaye nag maa ngi leen xamal dañ leen may ñetti fan ci lim wax noonu bu dara xewut danañ bindab leetar taf ko ci kaaba ge ne antum ne daal antum akzabu ahli baytil fil arab ne yéen a dàq nar ci arab yi teqalikoon na ñoom ñaar mu mer lool moom Abbas jigéenam ñe dégg nañ ko ñoom tamit mer ña wax si ko ne lu tax abu jëlin mile di ak ndaama boole ko nekk ku sew ruuj làmmeñam ñaaw wax la wax jile daloo ci kawam bu la sa deret xañul ñun suñ deret xat nañu boo ko fajut ñoo koy faj moom tamit nag deretam xañ ko mu ne bàyyil ma dem ñetteelu fan ba ni mu génnee dem wëri kaaba ga rek mu dégg abu jëxli na nga gis abu jëxli na ngay daw mu foonee dafa ko ragal moo tax muy daw ndeke abu jëxlin dégg na loo xam ne ni kii déggut ko lu mu dégg dégg na dam-dam mi ñëw màkka yooxu ne yéen waa xurwe yi fi dëkkee génn leen dem suqali seen xalal jaak seen bakkan ya seen bakkani mbokk gaaw leen lu toy mata lu toy mata amwaalukum maa abi sufyaan qad arada laha muhammad maa ashaabihi wala ara an tadrukuha alxawsa walxawsa lii la wax rek fekk abi jërin dégg na ko waaye abbas moom déggagul ko dawi abi jëxlin yi soxlaal na ko abi jëxlin lii mu dégg tamit soxlaal na ko foofa rek ndeysaanam la màkka commencé ku ne jug ku mënta dem xam nga koo teg sa place pour mu demal la kenn ci màkka ah seen sang ya kenn desu fa xanaa abi lahab kese te moom ba dem tamit dafa hebal Asim nu Hisham ne ko kaay toog sama place xamee loon nga ma ñeenti junney dërëm léegi jëlal loola dem dem wutuma mu mu mu mu wattee la ko. moo tax fekk badar waaye bi ñëwee ba badar ba koy nettali waxoon naa la ko juróom-ñaari fan lañ ca teg mu dee ndax ko koy nettali dafa mer song ko kooko song ko jabaram dimbali ko mu dal ci kaw mu dóor ko mu soppeeku góom boo xam ne day wàlle mu ju dee dee na lu mat ñetti fan ñu door koo mën a suul bañ koy suul dañoo gas pax rek ko ca ñu mut koo jege doom yi sax dañ ko doon daw ci jàngoroom ja waxoon naa la ko ñëpp daw ñëpp a dem ku mënta dem xam nga koo xebal umayyatum nu xalaf fa bëggoon a toog ndax mag la xubatum nu abi muid ñëwal ko ak benn xànd ne ko cam ñëpp génn yow yow jigéen nga bu waxee boo toog fii rek te te ñu lay cuuraayal wala nga toog fii di jaaru ba mu ko waxee loolu deretam xañ ko moom tamit mu mer gannaa ba mu ne ko xabaxaka laa wa xabaxa maa jita bi li ma wax a pon man kay doon fi bàyyi daal tatak mer rek jug fekk moom yontu fa ko mos a tëkku mu ragal ne bu demee fa doon fa jeg moom moo taxoon mu ragaloon dem waaye dem na de waaye jigu ko de su ko defee umayatu mile boo gisee mu ragaloon dafa déggoon ki sax dum nu muaz mu ne yonentoo wax ne anna sa aqtuluhu wa fi riwayatin kaana umayatu qad samia min saad ibnu muaz anna nabi salaa sallam qaala sa aqtuluhu qaala umayatu inna muhammadan laa yakdibu walam walam yasal mutaxawifan min dalika looloo waraloon mu ragaloon waaye mu gën a dem ba ñu dajee ñoom ñëpp waaj takk seen bagage yi war a génn pour dem xare ji ah départ nañ pour war a dem ñu ne dañoo ragal nag daal ñu nekk ban bani Bakar te histoire di na suñ diggante ñi ragal buñ demee ñi ñu wutuñu gannaaw dal ci suñ kaw jigéen ñi suñ xale yi jàpp leen jaam Iblis sol mbubbam Suraqatu bnu Malik ibnu Joosam mi ngi bokk ci asraafu ba ni kinaanata na leen ana jaarin lakum maa ko garante dem leen min an taatiyakum kinaanatun min xalfikum min xalfikum doo am dem leen maa ko garante dem leen ñun ñoo maa leen garant demal ci la ci lañ nangoo dem fekk dafa leen xëbar rek bëgg ñoom ñëpp ngi dee ba ñaari mbooloo ya dajee ba tey iblis mu bon mii nekk ci sàppey musrikiina ya sol mbubam suraqatu bnu malik suraqatu mii mooy sangab kinaana te yëgutoon na sa xare bi xew na téye ci loxob xaaris moom moom suraq moom moom iblis misal bu moom suraqatu téye ci loxob xaaris ibnu Hisham waaye daal ba mu gisee malaaka yay wàcc jibril wàcc kaalahu mikaayil wàcc kaalahu téye laxab ak fas ga rek mu daw naka sa ala aqibayhi xaaris ne ko foo jëm mu ne eh, gis naa lu ngeen gisut laay tay tay tay ngeen dee inni ara ma la taraw na de départ ñoo tax ba ñu ñibsee ñu ne waa xare bi ñu ne Suraqatu nu Malik daal moo ñu trompé moo ñu ray fa bañ ko waxee ba mu dégg ko mu ne billaahi yëgu ma woon dem ngeen ba dara xeex yi sax yëgu ma ko sax xaw ma woon ne sax dem ngeen foofu ba xeex ba ba di xam ndekkee nag gannaaw si gi nag lañ door a xam ne ki Iblis a sol mu bëmm léegi nag xéeféer yi ba ñuy dem dañoo dem ba ca Kaaba ñaan ndeke ñaan ngi kat. dañ doon ñaan ci kaw yonent bi nekk ñaan nga dañoo ñaanal seen bopp dañoo wax ne yow yàlla allahuma unsur ahdal fi'atayni wa alal jundayni wa akramul xisbayni yow yàlla ñaari kuréel yi ka ca gën a jub yoon yàlla nga ko dimbale kookaay yonantu bi di ñaari soldat yi ka ca gën a yi ka ca gën a kawe yàlla nga ko dimbale kookaay yonantu bi di ñaari kuréel yi ka ca gën a tedd yàlla nga ko dimbale ndeke kookaay yonantu bi léeg-léeg ngay ñaan waral nit ndeke da ngay ñaan ñeexal ko la nga doon ñaan waral nit ki nekk da ngay ñaan waral sa bopp moom nga ñaan ñaal ko ba yonent bi dem nag war naa génn fukki fan ñaar ci weeru koor Omar ibnu Ummi Maktum la bàyyi woon ca Madinatul Munawwara mu war a jiite jullit ña ci waxtu julli yi nekk mbokkam Bani Amir ibnu Luay booba nag lansaar musu ñoo génn dem di xeex xamuñu woon loolu xaci dajeeg seen noonu di xeex yi musu leen musuñ ko am mukk musta am lii mooy seen première fois loolu di door a am su ko defee nag yonent bi yóbbu na armeem ba ba ca biiru abi bata ca moom ak madinatu munawwara benn mayil la mu commencé di xool ñu ndaw ña di leen fomm ne dem leen ngeen di ñibbi ki la kam njëkk a fomm mu nekk xale mooy Baraaw ibnu Aasib ne ko demal ñaareel ba mooy Abdullah ibnu Omar ne ko yéen ay xale ngeen dem leen bu leen dem ba bu leen leen dem ci xare ba dem leen ngeen toog bu leen dem xam na ci juróom-ñett ñoo xam ne nag ñoom dañoo toog ñoom tamit demuñu ñii dañoo feebar le mel ni Sayyidna Usmaan demut soxnaam roqiyatoo feebar gannaaw si gi sax la génn àdduna fekk yonentu baa nga badar moo ko defar sang ko sang ko jullee ko denc ko yonentu bi jaar ci xabru ba ñaanal ko talxatu ak saïd ñoom ñaar kenn début too leen yónni woon ne dem leen ngeen rajul ma njëggam abi sufyaan mi ñoom ñi jaar di dox ba yegg place bu ngi tuddee xisaar bañ fa heggee ñi nëbbatu ndeke njëggama romb na leen te yëguñu ko ñu jotale xibaar ba ba mu hegg ci yonantu bi ñoom ñi départ dem Medina xamuñ ne yonantu bi génn dem Badar ñu juwaloo loolu tax ñoom ñaar demuñ juróom ya ca des yëpp nag yonantu bi xam ne dañoo toog demuñu ci waa ansaar lañ wax naa la ca juróom-ñett lañ wax naa la ñett ña muhaajiriina yañ juróom yi nag waa ansaar lañ abu lubaan tam moo ca jiitu demut yonantoo ne ko dellul dañoo dem ba ci yoon mu ne ko demal Medina xaar ma aasibnu aasibnu addi laa ajlaaniyu demut yonentoo na ko demal ci ëhlu awaali nga nga nga nga xuutuma fa xaaris mu xaatib demut yonentoo ko yónni woon mu war a bàyyee ko rawxaa jëm ci banni amrin ibnu awfu demut ah xaaris ibnu sammata demut xawaarit demut xawaat xawaat nu jubayru demut ñoom ñaar ñile muy maanaam euh, euh, maanaam xaaris xaaris mu samata ak xawaat dañoo toggoo woon gëlëm yàlla dogal ñi daanu ñoom ñaar ñëpp damm yonent bi ne ñibbi leen xare bi nag xéeféer yi danañ mat junne à peu près ndax seen ñaari xale kenn ka sax nit ku ñuul la dañoo demoon ca teen ba di nàndali Hamza toog Aliyu jàpp leen yóbbul leen yonantu bi fekk yonantu julli ci lañ leen laaj ñu ne ñun de dañoo yónni woon ndox rek ah, ndax yéen da ngeen a ànd ak Abu Sufyaan wala da a ànd ak Abu Jahlin waaye ko ca kiiba ba ci bi ngeen bokk wala ci nafiir bi ñu ne ñun de. Eh, ci ci ci nafir bi lañ bokk nafir abi jëxlin ñoo ñu yónni woon ndox gaa yi dóor ko dóor loon dóor yi métti laajaat leen ndax bokku leen ci abu sufyaan nga ñu ne abu sufyaan lañu ànd ak fekk yonent bi nga julli musulman rek ne yéen ba ngeen leen dóor agut lañ leen waxoon mooy dëgg ba ngeen leen dóoree dañ leen a lañ leen wax du dëgg yéen dañ leen a fen ngeen bàyyi leen ñu wax leen dëgg ngeen dóor leen kenn du yonent bi fekk moom xam na loolu te fekk xamuñu ko fekk na nga bokk ca eh, nafiru abi jëhlin ba waaye dañ leen doo pare bàyyi leen gaa yi xale ya daw lañ leen laaj na ñu ne moom ba laaj nañ leen ne waaw ana gaaya ñu ne ñu ngi fii ci xuur yi soriwuñ dara ñu laaj leen ne leen ñoom ñaata lañ na nuñ toll ñu ne hee nañ nag ñu laaj leen ñu ñoom ñaar à peu bët bu set yonentoo leen laaj lu ñuy togg ci gé gëléem lu ñuy lot ci gëléem pour pour di ko xewloo mu ne ko a ah, à peu daal léeg-léeg juróom-ñeenti gëlëm léeg-léeg fukki gëlëm ki diggante bii daal ci la ñu ci la ñu baagante ah, ci la yonent bi moom ko man a ak calcul la mu ne téeméer eh, junne nit lañ mbaa junne yu manqué tuuti juróom-ñeenti téeméer daal jëm ba junne moom la ñuy toll moo tax ma wax la loolu. kon nag loolu la leen wax ñi xamal leen ne noonu lañ demee de su ko defee. ñoom ña ngay ñaan yonentu bi ndey saanam génn ak ñetti téeméeri nit ak fukk ñett ndax moo leen wax na leen seen lim bi moo tolloog limu taaluuta ba ba muy dajak jaaluuta yéenay tolloog limab maanaam rusulullahi mursaluuna yi seen lim bi lii la moo tax sax walla maawu siire seen tur ye ñoom ña fekkee badar ku ki def tawasul tudd leen ñaan sa soxla yàlla faj ko yonent bi xool leen ak seen néew doole ga xoolal tey ni ñuy toll ni ñetti fas lañ xam ñenn ngeen ne ñaar sax xam na ñu ne miqdaad moo ca am fas ak mursid ibnu abi mursid ñetteel ba ña ko wax dañ ne subay riitu mi xamoon na fas lañ xamoon ci gëlëm yëpp juróom-ñaar fukki gëlëm la yonent bi sax dafa doon toggoo bu waree ba si kanam ñu àll yu war demeet noonu lañ doon toggoo xante ah fas waa muy fasu miqdaad moo tudd moo tuddoon ay suub Subayru yu am naw fas moom ak Mursid ibnu Abi Mursid lii lañ woon ba ñuy dem yonent bi xool leen juróom-ñaar fukki gëléem lañu xam ñetti fas boole kook dañoo fàndaañu ñi xamuñu dàll yuñ sol ñenn ñaa nga rafle wa xamuñu yëre mu ñaan ñaanam gu siiw ga ne allahuma innahum xufaatun fa ahmilhum sa gaa yi dañoo fandaañu de yàlla dëgg seen tànk yi dox yow yàlla yàlla nga sëf leen bu ñuy ñëw yàlla nañ war mu ne allahuma innahum uratun fa aksihum yow yàlla dañoo rafle yàlla nga hoddu leen allahuma innahum jiyaaun fa asbihum waaye allahuma innahum aalatun fa agnihim yàlla nangu na ñaan nga mbooleem ña doon dem badar boole koog di dox ba ñu ñib dañoo war mbooleem ñi nga xam ne dañoo ñàkkoon yëre ba ñu ñib si dañoo xor du bëri yére ba xam bay maye ña xiifoon ñëpp dañoo regg ñi ñàkkoon ñëpp dañoo xoomal kon ñaan nga yàlla nangu na ko départ nañ yonent bi jël na drapeau ba benn ba nekk ca kanam mu jox ko mu sonn Umayri moo koy féete kanam nag ah Mus'ab moomu doomi Hisham la doomi Umayr la Umayr doomi Hisham Hisham ibnu Abdu Manaaf Abdu Manaaf ibnu Abdi Daar amaan na yeneen ñaari drapeau yu ñuul benn ba Ali ibnu Abi Talib la ko jox benn ba nag waa Lansaar la ko jox gaa ya départ nañ ña ngay toggoo gëlëm ya juróom-ñaar fukki gëlëm lañ xam yonent bi moom dafa toggoo xoon ak Aliyu moom ak ak Mursid ibnu Abi Mursid toggoon ak moom tere la leen wax ne maa antuma bi aqwa alal masiri min nii wa maa ana bi naan anil ajri minkum xëpp leen ma kartan ci mën a dox kon nag naay dox di war ñee ni dox di war ñee xaylante ñee xawante waaye man tamit gënu leen maa bëgg yool du ne damaa doy lu yool walis leen li ngeen bëggee yool laa bëgg yool te dox bi yool a ngi ci kon nag nañ koy xaylante rek su ma waree war war ngeen dox su ngeen waree war war man ma dox mu jeex dox nañu ba jege fu ñuy tuddee safraa u ci la yonent bi yónni bas-bas bas-bas muy bas bas am rëy aljuhaniyu ak addiyu sarbiyu aljuhaniyu ne leen dem leen ca teen ba ngeen gëstul ma ay xibaar maanaam ci njëggam Qurayshi mi ñoom ñaar dem nañ yësal seen gëlëm seen géléem nga ci wenn tund wu jege badar ji sàcc ak déglu ñi dégg ñaari jéebéer a ngay waxante ne waay waay lebal ba bu suba mbaa gannaaw suba ci lay njëgg mi ñëw ma man ci liggéey fay la kenn kaa nga wax moroom ma ne ko innama tariddu l iiru gadan aw bada gadin fa amilu lahum suma aqdiyaka suma aqdiyaka suma aqdiki su ko defee ma man laa fay jigéen lay wax ak su ma su ma def ko rek fay la mu ne ko d'accord ñoom ñaar ñibbi nañ wax nañ yonantu bi nekkoon ko njëgg mi suba mbaa gannaaw suba déggee nañ ko ci ñaari jéebéer indil ko xibaar bi abi sufyaan am na xibaar teggi na dafa ñëw rek ba mu yegg ci badar rek dafa teel a ñëw suba lañ doon xaar ak gannaaw suba rek mu far ñëw ci bis bi ba mu ñëwee mu laajte ndax gisu leen fii ñenn ñu fi ñëw fii di gëstu de ci teen bi mu fekk fa ay nit ñu ne ko gis nañu fi ñaar ñu war a gar gawar ñëw nañ daal ba si kanam ñu dawal dem mu ne leen waaw fu ñu toogoon ñu ne ko ca tund wale mu dem fekk fa ay nefere ay cabinet yi gëléem mu toj ko fekk ci ay saal mu ne ñi Yasriba lañ bàyyee ko booba tuddeegul Madinatu Munawwara yonent bi ko tuddee noona ñoom Yasriba lañ daan wax booba dafa yonent bi demee la tudd Madina mu ne ñii de Yasriba lañ bàyyee ko de ci la gaaw rek ñibi fekk dam-dam moom dem na ba yóbbu xibaar bi ñaas boppam xotti yéreem yi ku mën a yokk xay la yonentu bi nag bi mu ñëwee ba safaraawu googu mu kàmpe taxaw wàcc ci wenn xuur ñëwaat ba ca kanam mu deparaat ba jege ci wenn xuur bu ñu tuddee sifraanu xuur la woo xam ne ku bàyyeekoo misra moom ngay sóobu booy dem di haji yonentu bi nag war a kàmpe nag dajale gaayam yi nag wara waxtaan ak ñoom ne leen waaw dañoo ñëwoon ngir dab fi njëgg mi sama xalal lang ca seen xalal lang ci ñun ñëpp ñu doole jël ko yàlla xamal na ma ne njëgg ma raw na Abu Sufyaan dem na léegi nag yéen njëgg ma ak bakkan ya lu ngeen ca gën a bëgg xam nga nit ñi xalal dafa sax ci xol ñoom ñëpp yooxu ndeysaan ñu bari yooxu ne ko njëgg ma lañ soxla yontu muy xalal ja fal iiru ahabbu naa minan nafiiri waaye waaye yonent bi jot ca xalal ja moo ñu gën jot ci dajeeg suñ noon yi mu ne yàlla dëxal na ma ñaari kuréel yi benn xiir ba mbaa nafiir ba gu ngeen sa gën a bëgg gaa yi ne ko xiir ba lañ bëgg mooy njëgg ma yonent bi njëkkal xarxaramam laaj leen ko ñu waxaat loola mu ne leen njëgg ma raw na ñu laajal leen ko ñu waxaat loola aboubacar a mujj jël kàddu wax wax ju rafet omar ibnul xataab jëlaat kàddu wax wax ju rafet Saad ibnu Ubaada te jël kaddu ne ko yow yonent bi digleel loo digle ñu def ko boo ne woon dem ba ci àddan wallahi ñu fekk la fa boo yóon boo doxoon ne àddan lañ jën àddan Ibyana nit la woon ca nit ñu njëkk ña billaahi boo xootee woon foofa ñu fekk la fa ci la miqdaad ñëw ne ko yow yonent tubi am di lima ma amarakallah li la yàlla digal wéyal ko fa nu maaka ñun duñ wax la banu israil waxoon Moussa idhab anta wa rabbuka fa qaatila inna hahuna qaa'idun duñ ko wax loo digal ñu def ko yonent bi nag xelam door a dal mu ne ah njëgg ma nag raw na waaye nag ah, ah, nafir baa ngay ñëw abi jël na nga na génn na ànd ak nitam ña war a ñëw ñu war a dajee badar kon fokk xeexam yonentu bi départ na ba jege badar nag ci la yónnee Ali ibnu Abi Taalib ak Subayr ibnu Awaam ak Saad ibnu Abi Waqaas ne demal leen ma ca teet ba ngeen gëstul ma fekk nañ fa benn xale bu góor nit ku ñuul la bokk ci bani xajaaj turam dëgg mooy aslam ak beneen xale bu bokk ci bani aasi su ko defee ñu jàpp leen ñoom ñaar ña ca des daw fekk ñoom ñu ngi jógee ko ci njëggam mu ngi bàyyi ko ca euh, kuréel ab abi jëxlin ba ba ñu ñëwee nag yàlla dogal ñi laaj ko dóor ko mu wax ko waxoon naa la ko yonent bi wax leen fekk yoon dañoo fekk muy julli ki njëkk a ñëw nag ci na yi mooy Ajiir ba mu ñëwee tamit gaa yi jàpp ko ba ko ba ko gaa yi yëgee nag tiit nag waa mag yi seen armee ba tiit ne hee jàpp nañ seen seen seen seen ndaw la ñaar ñe tamit jàpp nañ leen ñu ngi tiit bañ leen dóoree nag ah ñi laaj leen ñu ne ñun de ñu nag Abu Jëli na ànd gaa yi dóor leen ndax am leen Abu Sufyaan Abu Sufyaan la ñu ànd ak yonent bi sëlma rek ne leen bañ lañ leen njëkk a wax te dóore luñ leen mooy dëgg ba ngeen leen dóoree alaa kulli haal lañ leen wax du dëgg yàlla xamal na ma lépp. ñoom nag ñoom lañ laaj fu gaay a campé ñi wax leen ko ñi laaj leen ñaata nit lañ àpp pare ñu ne ko juróom-ñeenti gëléem lañu reen di la ñuy lot léeg-léeg fukk ñi laaj leen nag yonent bi laaj leen kan ak kan a nekk ca ñoom ñoo ko yee eh, sang yaa ngi ca nag Utbatu bnu Rabiiha ma nga ca Utbatu bnu Rabiiha taa nga ca Shaybatu bnu Rabiiha taa nga ca Abul Buxtari bnu Hisaam ma nga ca Hakim bnu Hisaam ma nga ca Nawfal bnu Xuwaylid ma nga ca Haaris bnu ma nga ca tuaymatu bnu addi ma nga ca nadir bnu xaarisa nga ca samaatu bnu aswada nga ca abu jahli nu hishaama nga ca umayatu bnu xalafa nga ca nubayhun ak munbihu di ñaari doomi xajaaj suhaylu bnu amrin ñi ñëpp ña nga ca ah abu sufyaan rëcc na dem na yegg na màkka mu dégg na gaa yaa ngay génn dem di xare mu ne dëpp naa def dëpp leen innakum innama xarajtum li tamnau amwaalakum wa rijalakum wa qad najaaha llahu taala farjiu seen xalal ji moo leen taxoon a génn ak seen nit ñi muy ñun ñii mucc nañ dëpp leen abu jahlin ne déedéet ñun de duñu dëpp lu dul la ñoo xegg badar